waaw ñu def ko cëslaay def ko hujja hujjatun loolu mu wax ne insha hadin kaana lil wakila wa axaadali ma axjalal makila <laughs> waxaadali ma axjalal makila naan naan cinquante la di mesurer déedéet kenn du doonul na lu ñuy peese. ndeysaan kay dëgg. waaye li ma leen waxoon léegi rek. jërëjëf Serigne Touba moom. moo kawe lépp. nii. hinda jamiihi jundihi. mus xasadu ziyaarati min hindihi. ba ko yàlla sante ba noppi nag. malayika yi ñoom dañoo ñaan seen boroom ni ko ndax mën nañ koy ziare ji mu ànd ci ñoom benn malaaka buy xëy def lañ ko sant te ñëwul ziare ji Tuubaa dellu amul mhm. ndax ñoom seen ni xefe xippi lay mel dëgg la mu xasadu ziarati min hindi inda jame yi junde yi ci kanam Jibril Mikaayil Israfil ak Israil ak ñañu coiffé ñëpp jamiyax la wax de hmm. malaaka yi kenn daa xam ne ñu toll kenn xamul nu ñu toll te foofa la ko sante seedal leen ko ñoom ñu ñaan ko pour di ko ziar njooxe la ñuy def night and day <laughs> guddeeg bëccëg waaw suba ngoon hmm? ah ñun de ñoo war a gën a sant moo tax wax naa seegaan na ni ko man day wax dëgg yàlla lu ne lay bind bind naa ba bind wallax ndiku wallaahi hmm? waaw hmm? wallax ndiku ñi ji ji maanaam ci law bi yee koy def hmm. koo xam ne da ngay nangoo bu law benn bu dofam bu koo xam ne da ngay maanaam fu xeebu nekk fu xeebu nekk nga jëli waaw ndax loolu moo lay jox daraja maanaam ngay xeebu ci moom ci nu ne Mm-hmm. looloo lay jox daraja ci la lay joxe daraja mm-hmm. sëñ Muntaxa ba ma gisee benn papier en tête mu tudde fa ci boppam mu tudde fa boppam xulay mu xam nga xulaam ci arab mu ne moom mu ne xulay mu bu tuddee ca boppam maanaam ngóor si gën a tuuti nga gën a xeebu ngóor ku tedd kii ka gën a xeebu fu lay ci papier en tête ma ne kii ku ko moytu moom di nga sërëx dëgg la de moo tax nag setantal baax lool ñii mu fii bàyyi nag ku nekk boo toogee ak saw doxin base bi moom benn la mhm. weesuwul iman islam ihsan waaye instant bi nag dem day taaweeku mooy mooy tax am ci yuñ ciy bokkale ak yuñ ciy waroole waaw instant day taaweeku iman iman la islam islam la instant nag daa concerne domaine yépp nag domaine yépp idman soog caa topp nag lu nekk constance def caa baax boo bëggee man xarra al baba wala lajja wala lajj waaw loolu xikma la ku tedd ki mooy waxe noonu ca la ñuy waxe dawlatul xaq saabitun wa amal baatilu nag fa zaahiqun wa saafilun dawlatul xaq boobu nag lan fi bëgg waaye newuñu suba suba mbaa génnaaw suba mhm. une fois que ñu accepté les tenants du pouvoir une fois que ñu accepté seen réceptacle seen référence ñu jëlee ko ci ku tedd ki rek dawlatul xaq daal di tàmbali daal di tàmbali euh, selew lii képp la mhm. du lu jafe lu yomb la lu yomb la d'accord jàngal nasaraan français jàngal anglais jàngal espagnol loo jàng lu mën a doon baax na am mais waaye njàng la rek lang la rek mhm. lang la rek ci forme jotut ak fond dara parce que <laughs> nee nañ la al ilmu nuur le savoir est une lumière. nga jàng ba noppi nekk nulaar nekk jaay. du dëkk gis ko dem koo xam ne da gis koo xam ne te ne bu mu def du admis du am diplôme bi day mujj abandonné. day mujj ba abandonné njàng. na booba sirru baa ñëwul waaw sirru sirru baa ñëwul savoir beaucoup de connaissance boo xamee ne lii mbubb la xamal couleur loolu mooy savoir savoir mooy mu leer ni la daa weex mbaa mu leer ni la daa ñuul te mu doon ko loolu mooy savoir waaye lii mbubb la rek nan la mel boo xamee ni mel nag le savoir di dugg moo tax ñaare hmm. ku ñoŋ-ñogi ba mokkal benn bayit day baax mm-hmm. bayit lu nekk la attan mm-hmm. lu ne la attan bayit xarafu ca nekk day attan lu ne waaw ndax koo xam ne day bind ba ci yàgg wenn xaraf ni fay ni cëpp fële doonu leer ba ci yàgg mu soppi lu ko jëm dari noppam di tudd yàlla <laughs> hmm? bindu xaraf mu doon cokkorub leer ni fiw ba fee mën a fa cëpp doon jëm dar nopp yi yëkkati baatu laa ilaha illallah baatu laa ilaha illallah moo ko daan yëkkatil boppam jël kala ga takk ci ndigg la nii ko naar yi waxee di ko di ko ni tegale moo leen ko dàqoon ko dàqoon moom bi mu jógee gànnaar sax daanaka bi mu fekkente ni mi ngi wax mi ngi wax euh, arab da ngay defe ne naara wax maanaam lang yëpp la dégg waaye du ko sib lang yonent bi rek lay wax arab rek lay wax da lang yëpp la dégg fa mu nekkoon it gabon seen lang yépp la dégg nettali naa la wiir wéer la kilifa ginnee wax ca wéer wéer ni leen ki ma leen doon wax te boobaag léegi mat juróomi téeméeri at moo fi ñëw newoon naa leen bis bu fi ñëwee day jëmmi nit la fi indi te suñu langue bi mënu koy gën a dégg conversation bi na mu demee waxoon naa leen ak ji ka doon jéem a baj bajeeg na ko Jibril def leeral naa leen ko waaw yow fàttewoo fàttewoo ko waaw te doon am yi mu doon jéem a diit diita waaye moom Jibril la ko faagaagal rek mu xam ni kii moom doonul ku ñuy tontonteel wallaahi <laughs>